Thank you. Sénégal euh, fii ñu ngi fii si Grand Théâtre Grand Théâtre nekk benn lieu bu mythique ba nga xam ne rappeur Sénégal yi ku nekk jaan jaar na fi muy euh, Dip Doundou Guiss muy Omzo Dollar muy euh, El Jazz ñëpp jaar nañ fi tey nag kii di Elzo Jamou Ndong wootewul ci biir wootewul ci biir tey ci biti la woote ci esplanade bi ñëpp woon naan wuy si ay fansam ay mbokkam nga xam ne loo xam ne da koy def chaque année fii ci Grand Théâtre mu nekk benn réussite total sen ma dalal sama mbokku euh, animateur bi sama mbokku euh, wasaare TV seen lan nga war na xam si seen bi. nous sommes l'harmattan on souffle la fraîcheur de l'innovation nous sommes les enfants de la télé loolu leer na parce que tey jii boo gisee maanaam yàlla di taw nii Elzo Jamdong moo ñëw fii si esplanade du Grand Théâtre mun na yëngal bu mu yëngu à chaque fois ku nekk am na ñoom ku nekk rappeur am na ku nekk am nga say fan Elzo Jamdong boo ko tuddee yaakaar ne fils à papa à chaque fois ñoom ñoo nekk ay fan sa moom waaye tey jii leneen la ñu gis boo gisee tey jii xam na mag ndaw xale ñëpp a ngi parce que ñoom ñëpp dañuy dund lii di hip hop Sénégal Galsen donc donc ça veut dire fu moo ngi jëm kanam bu baax a baax ñu ko si mag yi jële woon ñoom xumaan ñoom ñëpp tey ji xale yu ndaw yi ñoo ngi ko seen loxo bu baax a baax Ezo Jaamu Don exemple la moo tax tey ji mu ñëw esplanade du Grand Théâtre pour yëngal comme ñeneen ñi Dip Doundou Guiss Ngaaka Blindé te yaakaar naa ne tey jii Umar ñoom ñëpp dañ fi teew. waaw comme seen ni nga ko waxee Elzo Jamdong mu nekk ka nga xam ne bokk na si hip hop Galsen bokk na si rap Sénégal bokk na si tamit si rab mondial nga xam ne dem na fële ca France toj euh, lii di euh, lii di plateau yi fay def. dem sa France 24 dem ca TV5 di teewal Sénégal lii mu koy def chaque année mu nekk plateau show mooy Topla show Topla na bokk léegi si agenda hip hop du Sénégal tey fii si esplanade bu Grand tey ay mbokkam ay xaritam ay ñi mu àndal ñëpp. naan ko ñëw euh, wuy si si bés bu mag bi nii. en plus dama dama dama dama gis lu garaaw mooy ça veut dire que samedi bee passé ñoo ngi woon fii nii si esplanade du Grand Théâtre daj moo fi dóoroon moo bëri woon nit lool ñu yaakaaroon ni peut-être seen yenn Sénégalais yi bu Sénégal xewlee du bëree mais beneen laa fi gis maanaam surprise laa fi am gis ñëw gis Elzo Jammu donc fans yi bëri fi lool lool lool ba mel ni daj bi moo nekkaat grand esplanade du Grand Théâtre mu doon lu doy waar. waaw waaw noonu lay demee xam nga ni euh, Elzo Jaamu Dong nekkul ku ndaw fii si hip hop Galsen nekkul ka nga xam ne day woote kenn du ko wuyu si ginnaaw bi daju ñëwee xam nga ni daju rappeur international la mais Elzo Jaamu Dong tamit mun nañu wax ne rappeur international la parce que day dem fu ne day dem fu ne di fa teewal lii di euh, réewam lii di euh, drapeau am tey mu woote ay mbokkam fekk si ko ay fansam juge fu nekk si Sénégal raison bu nekk ñëw fekk si ko samay jàpp ne lu normal la. kon boo comme yi comme ni nga waxee wax ju bëri job habitude comme ni ko fois nous am habitude di ko waxee donc Elzo Diamidong est en train je suis sûr que il va mettre l'esplanade du Grand Théâtre dans sa poche comme d'habitude waaw euh, gis ngeen euh, ni ñu ko résumé dañuy ànd ak yéen si show bi nana dem fële ca fan si fële ca euh, duggee si porte bi nana waxtaan ak ñoom nan lañ nana dundee lii di show Dhopla show topp ma. sama gars yi maa leen di bëggee ziar naa leen. mais tey ji soo bi noonu lañ ko nar a dundee yéen fan si ah, kii di Elzo Jamdong. tàng rek dara du yomb. Ah. tàng waaw. sama gars tey noonu lañ nar a dundee affaire nice. Ah. waaw ah, gis nga de Elzo rek. sama gars yi yéen da ngeen tàng tamit borom Jamos la de. bu man nit dof fan si nit dof yi ñoo gën a tàng fan si euh, Elzo Diaz. non demeewul noonu sax de tàng bi ñëpp fépp la. Ah. waaw waaw ñu ragaluñ dara. jaamu doon rek. jaamu doon du fii sa wala fii sa papa ni ko gars yi jàppee Sénégal. Elzo lépp la. Ah. champion la. champion la waaw. ah Elzo ah gis. te pareegul sax. billaahi ñu moom moom gëm. tey du ah. fii yëpp. tey fii ba jàmm gan. waaw ñu teewal kii. waaw di waajal nag 31 décembre Samba Peuzzi. Samba Peuzzi ah. waaw 31 décembre incha allah mu naan cap cap cap. mu naan tas jumbuxu. jàmm si lañ jógee ñoo ba fii nii lii lancement la nii rek. RV 31 décembre ñëw ñu tasaare fii nii amul leneen. gis jumbuxu dëgg jumbuxu laax jumbuxu. jumbuxu mooy lan jumbuxu soo booy gis ak pati temps 31 décembre ñëwoon nga xool. Ah. man Ba me fekkelem le comme atam ba arga dia. Ah. de. mais du affaire de dara affaire la jàppalante man artiste la comme moom mais damaa ñëw teew si dagg tëgg comme gars yi yëpp invité wuñu ma def teew gars yi laa àndal barke alxuraan xam maa jox gars yi RV 31 man maa ko wax pati temps nga bëgg a dégg ak jumbuxu ak yuut 31 ñëw la ngeen xool ay xale ngeen de ngeen ñëw euh, si soo fan ngeen jógee ah? fan nga jógee man Kaala Dior. Kaala Dior. waaw yow kan ngay bëggee. man ah. kan ngay bëggee kan ngay bëggee. man fii. Elzo Jamdong. waaw tey ban song nga bëgg mu dugal. ah bu bu bu ñëw rek. bu ñëw baax na. waaw yow daal yow daal yaa ngi fi daal tey guddi gi. du yeah yeah yeah beneen fan sangi nii. Ah, ah. bi naka la. waaw man la Saliou Saliou. fan nga jugee fan nga jugee. waaw ñoo ngi jugee ba Pikine. ba Pikine nga jugee. yaa ngi na Elzo rek Pikine pour kan. Elzo Jaam Doom. Elzo Jaam Doom ngay bëggee. mu tegu ci jàmm rek. tey noo gis tey sow bi nan la nar a demee. ah mu neex rek la ñuy xaar mu ah. neex. waaw yaa ma a xam. mais sama gars yi yéen da ngeen tàng de. fu man Elzo amul fan fan si ñi koy seetaan ñu tàngee ñu yéen quoi ay fils à papa ay fils à maman ñoo koy seetaan. non bàyyi. ah bàyyi laa jógee ba fii nii pour seetaan si Elzo kese. kon Elzo am na fan si am pay gars yi wax gars yi ñooguñ sax des na. gars yi naan Elzo fils à papa la fils à maman. non non joobewul ñoom ñoo xamul moo tax ñuy wax. Ah. mais Elzo moo fees baal ya. Ah. billaahi. bi noonu la ko day fàcc ràcc. Ah, day fàcc ràcc tàng. dina relevé défi daju daju bi fi ñëw barka démb toj. toj grand théâtre esplanade lañ xam. Ah. ñun suñu doomu dëkk lañ xam quoi mooy loolu. Elzo moo fi moo tax ñu jógee jàmm gën ba fii. Ah. incha allah te day fàcc ràcc. ba ba di ko désacraliser. dëggoo day wàcc ba oo. Ah. bilaay walaay. mais yow la ma waral teewaay tey. dañ fi teew parce que Elzo doomu plateau la. Ah. te bu wootee doomu plateau yëpp dañu war a génn. Ah. ñu ñëw tamit soutenir suñu candidat. Euh, muy mu bëgg mairie plateau ñu koy AKG donc dañu ñëw ci ginnaawam. pour fekkee concert. tey tey da ngay da ngay concert da ngay sow. doo dem waaw waaw dañuy concert ba mu neex. ñaari may yéeg VIP di wàcc. waaw macha allah gàtt de. gëm na dafa doon wàcc ba suuf ah. maanaam chaque jour ñu wax ko damaa gàtt. waaw booy ni nga gàtte yow mag nga wala xale. man xale laa de. <laughs> ah xale nga. <laughs> ñaata at nga am. man 13 ans. 13 ans foo jugee. Eh, man ber kii mag la de. <laughs> ah mag la wallaay sama mbokk. Eh, yow mag nga yow. yow 16 ans nga am dégg naa 16 ans. kan ngay seetaan si kan. Eh, man Elzo laa seetaan El Diagne eh Elzo. Elzo jàmm dong fan man fii ci koñ bi fii nii rek. ah si koñ bi ah? ah. tey soo ngay bëggee. waaw ah. tey soo bi yaa ngi fi ba mu jeex tàkk mbaa doo ah. nelaw. non nelaw. <laughs> ah doo nelaw. savoir-faire et beaucoup de punch. voici le public qui a répondu à Elzo Jam Dong. ce soir on se plane à du grand théâtre. est-ce qu'il y a du fii. Bim Diop ma soo bi nag nag nag nag nag nag. le royaume du camp tout le monde. yokkal son bi yokkal son bi loxo yëpp ci kaw tout le monde comme ça. yokkal son bi waaw waaw ouvert na tiringa Jere, baki muru ma jege sura sama gare so Sere, lale nya katere Bulma sa kam sa me texto Bulma sa nangu iwito Okay Bulma fay do may laptop Dak na may play Nintendo Tout le monde comme ça Bulma sa kam sa me texto Tout le monde Bulma sa nangu iwito Okay Bulma na chok ligay war bulma war Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna,

waaw góor jàmbaar nga ku la xool ci yow naw hip hop Galsen image bi clean na ba ay multinational ñeme laa seen ay communication waaw góor jàmbaar nga deuxième édition Top la festival gars yi bàyyi ko Pikine Guédiawaye Yeumbeul Bour Dakar pour venir applaudir la star de Top messieurs faites le maximum de bruit pour Enzo bëgg siiw léegi siiw bëgg làqatu musu bëgg feeñ pour réussir am tëral soo léegi amatul jaratul léegi zindi waaye xaas léegi jaaxal ci ma ndax dee naa est-ce que sama dugub sonewul nag sama ex jox du ma gën a fii du ma gën a fii sama action peace kenn du am ma jaar fii am jàmm toog bu ma wett fu nekk am na suba waay man feebar ak yéen nekk succès bëri na piège bëri na artifice gagné naa ay cachet signé naa ay cachet ñàkk naa ay ami ñàkk naa ay xarit yàlla may may nekk man ma tey may fans et bien rek sa So we bring some big out of the girl and you a humble. I give you my humble. I give you my humble, humble, humble. Man, I'm my life, I'm my humble. I'm my humble. So they go. I'm my humble. Hey! I see you do that. Don't put it in a kiss. Put it in a kiss. Then I'm a diamond. Tina. Tina Makai. Tina Kuye. Tina Kuye. Tina Makai. Hi. Hey, hey, hey. si na ma gaay si na ma gaay te duma ko yëg te ku yëg ñu may xaar hey dox naa kilomètre dox naa kilomètre je veux missionnaire pour nekk billionnaire so na television a t-shirt marki gonna share where I'm talking who do much muru tapaga na ku immortal concert yang gonna fest super there yang down the love did not do some about to man is killing one of some guy man super na big show super na big show to get the one of you super na kick top super na big person to do machine to do machine go machine sa te bebe kuze mende mamera wana mara numero pake wana mega na top 3 rock como dede dede Number 9, let me charge up, put it back, let it go foot. man samay gën a si préparé da nga lay nit ñu ma xamul. nit ñu xamul nit ñu ma xamul. nit ñu xamul nit ñu ma xamul. amul xamul ma ne amuma life amuma amul. amuloo amuma amul. amuloo amuma amul. maa ngi si biir bi daal donc nit ñu gisul. nit ñu gisul. nit ñu gisul. da nga may dara. waaw waaw waaw. carrière bi dina ma gaañ. ci ma ci sama ko ëpp. sama ko yëg. Yeah, say jump, jump, jump. I say jump, jump, jump. I say jump, jump, jump. I say jump, jump, jump. I say jump, jump, jump. I jump, jump, jump. Kanaga. Yeah, Jana Mose Tan, the same anime. Magun on Tutti Gala to Ben tell him with anime. Sam Laron Golo, if you don't tell them watching it. Look at tell Jeff, Dibu Daka, Risuraga, Budije Matade. To Dakanaki Talibe, Mama Nina Jantina, Bizarma, Grind Badela. Wagale do it once in fifth town, Jantina, Wizard, Kona to my Anaxama Santima. Video Amir Setal and Hamelax. Video Amir Trezal and Dubustax. Remember, I'm a mark, they tell another walk, more like si wut seen mag brood onder toni paak litre van mijn raas dund naa ci génn naa ci riida van mi raam dund naa ko càng naa ak ruxu Macky Sall mi gis naa ne waa town du ñu seen égal ci noon c'est capital de la capitale waa la capitale de la capitale missionary town round after round Boy, check this out, Cedric Underground. It's a night in town, round after round. Boy, check this out, Cedric. Hey, it's a night in town, round after round. Boy, ma taki samo kaski nigga, No me brema, No me brema, no me brema. Ma taki samo niggas. One more time, yo. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Yeah, yeah. Yo mafi kana tipse. Tango yo. Nenin bay bir de fıkisme. Saldı yıkar, hey. Yo ayı alır. yi dafa diis baay si càmm dong la olympisme soo sa kaw saison seize ñu dégg bis baay ceer dig bis baay bis baay ceer dig bis baay ma takk sama daal gis ok pare ngeen ñu rab yow maa fi gën a tipse taar ba yombal nee nañ baay bi dafa bis me yow ay yow bi na xoolal maa fi dëkk riba ceer mun naa jot pise yow kay kaas sama tëral waaye xelel ma kii kat baa suy dëgër ku yoon sa kéem rose dama seet maa suy ca dem ci taagu ma par giraaru MC yi nekk di taasu lëmbal di nëbb ci njëriñ ko fay faar yu lëndëm bàyyi leen di kekk ci nga waar bu fële di papa gën a noble ci li ma cee ci li mbala sappi duru lu yomb bu dee si ñëpp ànd happy kuudru song aada saa ko ci riiri safal ko firiri bu dee mu defal ko easily easily easily charo ma gaay si may fàttali bàyyi ma nag petit sa c'est fair play dégg ko ma fi dara lu dul MC yi ma coob dana fii suuragul maa ngi ci biir sama dig maa ngi ci biir a bit bit jàng yi lay ñëw tas guda buul nga bëggoon sama liggéey ha sal kee ñu nga bëggoon liggéey two and yourself to get broken. Man, tell me some flow, come crack it. Talk some, jamul some song, they crack it. Tanga bay, like it, nigga, gay dog, I like a night. Cool life, nigga, jump back. No, they will fight. They want to, you know, jump, pull up, boogie, jump, walk with dog, jump it, pull up, little fight, low. Killer, gonna jump, play, play, killer, gonna, killer, killer, gonna, fuck it, go, fight, nigga.